xoroma rek dañoo sonn chauffeur yi dañoo sonn dañoo sonn lool bëgg ñu liggéey deux mois trois mois nga bëgg ko toog chauffeur ñaan mooy loolu nañ ñu dimbale ñu liggéey Macky Sall mooy loolu yaa ma gën a. lan ngeen bëgg lan ngeen bëgg lan ngeen bëgg. dañoo bëgg ñu xool nuñ ko organiser rek ñu mën a liggéey. ñu ñu gis seen bopp. Allez-y. comme euh, ni nga ko gisee fi nga xamante ni moom mooy Touba euh, depuis 9h ba léegi ñi nga xamante ni ñoom ñooy euh, chauffeurs yi ak ñi ni ñoom ñoo nekk ci biir diggante Touba ak Mbacké di fi def ay manifestation fépp foo xamante ni dem nga fi ci rond bi rek yaa ngi fay fekk ay récalcitrant ñoom nag ñi ngi nii jàkkaarloo ak ñi nga xamante ni ñoom ñooy takk der yi sànq ba léegi ñi ngi fiy dóor ay lacrymogène pour ñu disperser leen nag doon na lu jafe ndax mbooloo mi dafa bari lool lool lool parce que fii ba rond bi présentement nii rek ñi ngi ci rond bi di daw waaye tamit teewul policiers yi ñi ngi def seen i renfort sànq ba léegi gis nga kon boo xoolee ci sunu ay image ñu ngi noonu jàkkaarloo ak ñun policiers lycée ñi ngi gën a progressé ñii di récalcitrants yi di manifestation yi tamit di gën di ñëw. def kon gis nga gis nga gis nga renfort bi ñu ngi noonu di def euh, renfort. policiers yi teewul gars yi ñu ngi leen di sànni ñoom nag ah, wàcc nañ yoon bi jàpp dugg nañu ci biir dugg nañu ci biir yi dugg nañ ci biir di dàqante ak ñi nga xamante ni ñoom ñoo doon sànni xeer kon gis nga boo xoolee bu baax a baax daanaka ñëpp daw nañ teewul policiers yi dugg na ci seen biir gis nga euh, li nga xamante ni moom mooy policiers yi ñu ngi noonu di avancer di progresser waaye am na ñoo xamante ni ñu ngi ci kaw ñu ngi ci kaw tali bi boo gëstoo beneen côté bi tamit euh, ñu ngi beneen côté bi tamit ñu ngi nii ñu ngi nii taxaw ñu taxaw mu avancé gis nga policiers yi ñoom it euh, ñu ngi ñu nga sunu confrère yi ñu ngi noonu di ko yóbbu vraiment tey fii ci Touba moom metti na lool lool diggante takk dari ak ñiy manifesté wu ñi nga xamante ni ñoom ñooy manifester diggante takk der yi ak euh, manifestant yi kenn jàpp nañu ko mi ngi ci biir oto bi teewul pune yi nga xamante ni ñi manifester wu ñoom ñoo ko taal lu mat euh, ñaari pune ñi ngi noonu di ñi ngi noonu di di di di ba tey ñu xool kon dañu dem diga ji eh,